abonné leen ci seen seen Partout TV leen euh, dal leen ak jàmm mbokki internet yi wérgu yaramu kii di président Ousmane Sonko mën nañ ñe ma ngay amuk tan ba tax moom mi muy jota xamle ne jamono bi ñu toll nii foofu foofule ca hôpital dañ ko fa téye rek wante moom doyal na fa sëkk te tamit bëgg naa génn bu yàgg a yàgg moom mi di Ousmane Sonko yëkkati kàddu yi ni mel daal di koy xamle ak collaboration ak ñi nga xam ne rek ñoom ñooy ay avocats yi nga xam ne boobu ba tey ñi ngi sàkku lii di libération. wante kat mënaguñ kaa jot ndaxte boo waxee ci bi côté da nga wax ci beneen côté li ko waral du leen lu dul ay dafee moom mi nga xam ne tamit boobu ba tey Jaaba Jonge foofale ca DGE te mën nañoo jàpp que ne kat amul lenn lu yees loo xam ne rek daal na say jot juge ndaxte kat lankal goo xam ne rek lankaloon nañ ko ko depuis au début ba tey jox ko nag li nga xam ne rek moom mooy fiches de parrainage yi te fiches yooyu nekk nag loo xam ne rek jamono bii ñu bare bare ci ñi nga xam ne rek ñoom ñooy parti au pouvoir daal nañ koy jota jota donte le sax ñenn ci opposition bi gis nañ ñu daal di leen di jox li nga xam ne rek moom mooy fichier yi wante kat kenn rek moom mooy ki nga xam ne rek daal nañ ko koy lànkal booba ba tey muy kii du président Ousmane Sonko mbir mi ni mel tax nag ñu bëree baree bëri daal di si yey yàbbi donte nag jamono bi moom mii di ndey mbi ligi nekk ki nga xam ne rek mu nga ca biir l'hôpital